ci loom douze ci ak tabaski tabaski bu commencé ñëw rek jafe-jafe yi tàmbali maa ngi ko tabaski daaw jéeg si laa sama waajur bu góor ak sama mag ma bokk ak ndey ak bàyyi accident bu métti si veille tabaski bi ndeysaan ma jóge si lool sama yaay imposé ma ñaari xar si koo xam ne mënul am sax benn. xarum tabaski mi ngay daw force nga koy jënd damaa sonn ci mbàq yi ak buti deeg rataxit yi ay way bàyyi len bu ngeen amé sen nday yi sonn ci yeen bay bëgga dé ngeen di rayé sen jabari tabaski di bàyyi sen nday reuf auto oto bata bira taliba jël jël reuf yaay sen way man nag kaame ma ndox ma nan way fi ni dama sonn dé bo xamul pour soxal ma la pour téna nga fi pour nonu ba toog sérieux match bi dañ koy football tay sama yaay tay bu doon dund xam nga ni li nga ma tek du ko nang lu muy def duggal la ci kër gu mel nii waaye yow may mbay si sa xool sa piscine bi waaw yow bàjjan ma laa jox may de bee nga sangu te nga ba pisit bi bàjjan. bàyyi sama doom ji mu sëy sëyam bi nga koy éveillé wax nga ba sonn ma ma bañ ah te yaa ngi ciy bégal sa bopp. tiktok bii nii naa si siiw naa taxaw télé ah, ça va comment vous allez. mais nga ñoo xew. kër gi bu fekkente ne sama doom a fi joxe dépasse xanaa bu ma la ñaanu sax boo toggee nga ne sama goro bee de limbu muy oyof oyof xaar ma may ko su mbool mu ñam. yow mënoo bàyyi may man ne sa doom da ko fee joxe sa doom talatul dépense de yaa ko sas xar moom lay lijjanti. daw ngaa daw a daw a daw daw daw ba kenn xamatul looy nduróol ngir kan sa jabar ju bon jooju. xadi eh, je t'arrête dama la jox na nag xamal loolu. maa ngi dégg naa ngeen baara wax xamoon naa ne nga ñëw eh, eh, ma cee